xam ni man samay junni morom ñoo fi nekk rawuma fi gënuma fi nañ waxante dëgg ëpp ma fi xam-xam kenn rawuma fi gënuma fi mais nag yàllaay tànn xëy na yàllaa tànn jar ga daf ma woo mu ne eh, waxtaan bi ma defoon ca koor ga xoolal ca koor ga ca Idrissa Seck commencé nañ ko lancé waat fi mu ne di ko paasante mais je man du ma la ma waxoon laa wax loolu passé na jeex na ku ma dégg ma waxagum ci politique bi bu ngeen ma ci dégg ilaa yawmil xiyaamati parce que gisuma ci benn scandale bu tax ma war a wax. kenn waxu ci ci diine kenn deful ci diine ñu ngi campagne seen campagne man je m'en fiche sama yoon ci politique. ànduma kenn yàlla laa àndal. waaye ku ci wàkku diine ji ma xuri la billahi ladi laa ilaha illa huwa alxayyul qayyum ku mën a doon nag unanimité ci ñoom. fekk laalu ñu diine laalu ñu tariq sama tariqa mm-hmm. aw ma ak ñoom affaire la ma waxoon nag wax naa ko passé na ca koor ga la woon buñ ko génnee waatee di ko lancé kooku seen affaire la wala de ah, xëy na wax baa leen saf <laughs> wala de <laughs> ah waaw nit ñi dofatuñ <laughs> man loolu ba ma ko waxee yàgg na xam nga nit ñi xam vidéo bi xam nañ ko mm-hmm. buñ génnee wax bi qu'est-ce que ça veut dire encore qu'est-ce que ça veut dire wax bi ba ma ko waxee ñëpp xam nañ ni ca koor la loolu def na tour du monde àddina bi yëpp yëg jot nañ ci ku ko jëlaat nag génnee ko di ci def commentaire kooku sa affaire la sa business la kooku du sama business kooku yow yaa xam yow loo jotee Chérif Ibrahima ba mënoo ko digérer nga def sa commentaire mais man bu ma kenn tontu maa ngi leen koy ñaan rawati nag di ma saagal ku ma saagaal bàyyi bàyyi baalalu ma la ko fi dunya wal ci parole ci écrit ci parole ak ci écrit bu ma kenn saagaal tontu sax bu ma kenn tontu soo gisee loo mënta gis yaa ko liir yaa xam j'appelle nga dem internet bi c'est pas forcé man lu ci nekk rek comme nii dañ ma koy wax parce que awma ci accès toppatoowuma internet lijjantiwuma internet xooluma internet xawma luy xew ci internet waaw ko lijjantiwul internet xooloo internet xamoo ci luy xew ci internet luy sa yoon ci internet yow mi ci xool nag di ubbi ba gis loo war gis ñaar muñal wala nga zappe soo mënte muñ ba mënte muñ jàngal ma faati ak salaatul faati te dem loolu yàgg naa leen ko wax mais bu ma fi kenn tontul maa ngi koy ñaan lillahi wa rasuli mooy man bu ma kenn tontul agressé wu ma kenn tooñu ma kenn saagawuma kenn xasuma kenn ŋàññiwuma kenn bu dee ci politik bi ànduma ak ma sàmb ànduma ak ma demba ànduma kenn yàlla laa àndal diine ji nag ala lillahi diinul xaalis diine yàlla la ku ci duut baaraam danaa ca def sama kemtalaay kàttan fit mi ñu am bay laal diine man am naa fit wu ko ëpp pour tontu leen waaye fi fekk kenn laalu ci diine rek sama yoon newu ci diine nag ñun ñëpp ko bokk nag ku am responsabilité wax da war a wax lii rek la man nag lu ma waay wax baal naa la lu ma waay def baal naa la ba mu des diine nag tariqa bu dee tariqa fii yi fi nekk ñoom ñëpp xam nañ ne unanimité man kenn gënumaa fonk tariqa yi mag ñi ni ma leen di défendre fii ci Sénégal kenn defagu ko bu dee tariqa murit ba may tuddee sama doom sëñ Touba kenn xamu ko kenn xamut ne tuddee naa sama doom sëñ Touba ñaata at ëpp na 28 ans. <laughs> li ma am ci xarit yu sant Mbàkke ki kunte kenn xamut nu mu toll man li may wax ak li may def ci biir Sénégal ak biti Sénégal ñëppan ci teg seen bët man nëbbatuwuma conférence yi may def gàmm yi may def waxtaan yi may def c'est médiatisé ñëpp koy gis ku ko soxla dugal ci internet bi ba xam man mos nañu maa digg ma jël benn kilifa diine di wax ci yow lu teggi nu wut amul amul ragaluma nag waaye kilifa diine yi la fi yàlla teg lu ma jotee ak ñoom ah man may ñaan yàlla ci seen barke bëgg ci liñ am koo bëgg ci lim am di nga ko wax safaan boo ko ko waxee doo ci jot am na yoo xam ne sax am jot rek la nag dëgg dëgg nag waaw am jot rek la xanaa man maa nekk ci réew mi man kese waaye niñ ma ba man kese nekkuma ci Sénégal dëgg dëgg nag xanaa dañ tubaranke kilifa da ko rek am shérif am indi shérif indi am shérif am shérif indi ko ku waxta daaneeloo ci shérif Ibrahima sax doo kontaan. Ah? ah. waaw jeex na xëy na nag li ma yàlla moom li imam Mouhamad Lamine Diop wax te Seydi Hadji indi ko ci kifaayatu raaxibiina soo su la yàlla na may yéegal nag fokk mu saraxe sa der bi nit ñi di ci wax loolu rek la Maodo ko wax. Seydi Hadji Malick nga ko bind mu ne bu la yàlla nammee yéegal mënoo ci dara fokk mu saraxe sa der bi nit ñi di ci wax waaw ay saraxe sa der bi pour nit ñi di ci wax loolu kenn mënu ci dara waaw man daal tafsir laa tal maa ngi tafsir bu ma kenn dugal ci leneen lu dul tafsir ah mbokk mu baax ndeysaan bu nekk ca Europe man da man yii xew sa xaw ma ko bési heure bii bési tey bii heure bii mu ma fekk portigal bi si tey bii heure bii tembe mu ngi ma fekk portigal waaw man dama toogul sax ba xam lu xew ci réew mi tooguma sax ba xam lu xew ci réew mi du ma seetaan télévision du ma seetaan internet xaw ma luy xew li ëpp ci li may seetaan journal la bu dee Sénégal ñëpp mën nañ ko seede bu dut journal maa ngi France 24 man moom laay seetaan mooy sama tele su ma ca noppee bu amee lu may déglu alquranul karim la imaam Mahmoud Khalilil Xosari jeex na man aw jot. benn mbokk mu baax ndeysaan dafa ma ne man daal dama ragal ne gaa yi dafa am tur yàlla wu nekk ca kaw nga di leen ko xañ xëy na looloo tax <laughs> te ci njabootu Maodo la ndeysaan njabootu Seydi Hadj Malick la bokk mu ne ma xanaa gars yi dañ am tur yàlla woo xam ne dafa ne ca kaw nga di leen ko xañ. mën naa mën naa nekk ko mën nekk dama xam ne li fi nekk ci kilifa diine niñ bare te man waxuma dara dama leen di laaj rek ku ma tooñ dama leen di laaj it nag képp ku la ne jubluwuma Cherif Ibrahima ne ko lum la def képp ku lay koo dégg mu di ma saaga laaj ko rek loo joteeg shérif waaye li imaam Lamine Diop wax rek keroog altine bi may bi ñuy maye aminatu mu ne ndokk bañ la xamalut dara. wallaay wallaay imaam Lamine Diop a ko wax de. Mm-hmm. mu ne buñ la xamaloon genn caacaay gooy def. Mm-hmm. ne nañ ko wegg bu yàgg. wallaay te ñoom ñi may waxal ñëpp ku ci nekk xamal naa lu ñux mbóor goo xam ne su ma ko waxoon àddina tukki. waaye jaru ko jaru ko billaahi wal ku ci ne ci ñoom ñi di ma waxal xamal naa la lu ne weng heureusement mu ne ñu maa waxal dara tey bu ma doon doxaan xale yu jigéen ñi wax nañ ko bu yàgg su ma doon naan sàngara wax nañ ko bu yàgg su ma daawul julli wax nañ ko bu yàgg waaye alhamdulilahi rabbil alamin koo xam ne mënoo ko jamee dara lu dul ñuy ñàkk fayda yii moo tax dara dérangé wu ci nag dëgg dëgg nag dara dérangé wu ma ci hmm? dara dérangé dara gisuma lu ma dérangé ci àddina hmm? ku def commentaire defal lu la neex loolu le problème hmm. heureusement yii moom du fen montage bu amee it lu montage am am danañ xam lii kañ la woon. jeex na waaw. Hmm? ah waaw il xanaa maa xew daal. ay dara karaaraa waay waaye billaahi duma wax luy dëñ nag man nii di wax duma wax mukk luy dëñ incha allah billaahi du ma wax luy dëñ fii ma toog su ma neexoon wax leen kuy gañe ak kañ lay gañe ñu di ma font am ñaati suffrage lay am fii ma toog xam naa ko bokk ci coow li xam li xew a ko gën man damaa xam li xew billaahi wal kitaabi du du ma waxantu moo tax su ma waxee rek day dal waaw rek la nag ma waxantu moo tax su ma waxee rek day dal te li ma wax kenn du ko corriger dan waaye daf ma woo ci États-Unis mu ne ma yàgg naa la suivre de ça fait des années maa ngi lay déglu mais mosuma dégg ko la démentir ci li ngay wax ci wàllu baatin du wàllu alquran ma ne ko loolu ba jant bi fay doo ko gis ndax alxuraan jenn la amul ñaar ba ca Kaaba ga ak bi ci Sénégal ak ba ca Mauritanie yam amul leneen nit ñi dañ am jot rek ah ku may jonkonu di nga jaaxaan de ku socc di nga jaal incha ku socc pour ree di nga jaal ku ma jonkonu di jaaxaan loolu la yàlla dogal su ma neexee futtiku man mucc na la bàyyi Sidi Lamine Kunta daan def bàyyi Sidi Maxtaar Kunta bu masaan dem tournée yaramu neen lay def ne mucc naa ci luy lore man kuy lor mënumaa lor bàyyi Sidi Kunta moo jur bi Sidi Lamine Sidi Maxtaar Kunta mii sama xarit bi bàyyi Sidi Lamine bu Njaasaan nit day xam boppam <laughs> nga xam ne balaa ngaa génn di nga sangoo paanu saafara door a génn ndax bëgg ku la topp rek hmm? Hmm? Hmm. sant yàlla rek ñun ñëpp nañ bokk sant yàlla li may wax rek alhamdulilahi rabbil alamin gënuma fi gënuma fi kenn dàquma fi jàng kenn rawuma fi kenn gënuma rafet kenn ëpp ma xam-xam ci réew mi kon qu'est-ce qu'il te bu dee yar ak teggin kenn ëpplewuma ko bàkkuwuma ne waaye billaahi xam sa bopp dafa baax àddina bi unanimité xam nañ ne bu dee yar ak teggin kenn ëpplewuma ko waaye bu ful la jotee nag dañ koy doxal ñàkkuma fayda de diine ji nag du toolu bàyyu kenn yàlla moom diineem ñu toog fi di ko défendre ku ci laal danañ la tontu ca nam gën a rafetee nag ku ko bañ bàyyi fi suñ diine ji rek man ku ba diine rek man ma jàmmal la tariqa yi tamit ma ci bokk dinaa ko défendre waaye dinaa défendre ale yi ci des yëpp ak bureen yëpp dina ko teg ñaata taalibe sëñ tuubaa ñoo jógee fu ne ci France ñëw fekkee si gàmmu gi am na ci koo xam ne dafa ma ne li ma daan dégg ñu koy wax ndekete dara du ci dégg dañ ma doon wax ne yow bañ sëñ Touba nga. <laughs> te fii yéen gis ngeen ñaata taalibe maam borom tuubaa ñoo fi ñëw di fi defee xadaratul juma ñaata kenn xamul nuñ toll buñ fi doon dégg luy xas seen sëriñ duñ fi toog. walla murit moom am na ful la ju day ni booy xas sëriñam day tëb rek mbëkk la wax ji jeex waay waay ku melut nenn waroo xaste te man meluma nenn man diine rek laay waxal moo tax nag ñu wéy yëf yi sotti na ba pare coow fi des rek yàggatut dañ xaar baax na duñ ma tax wax de du ma wax wallaay du ma wax de kenn mënta fexe ba wax waaye xam naa de wallaay ndeysaan waaw waaw Thiam mu ne wal yaafu nañuy jéggale gis nga fi ñu toll rek ak fi ma jarga wooye gis nga ni mu gis nga ni mu ni mu tombee képp mu ne wal yaafu nañuy jéggale wal yasfaxu nañuy jéllale alaa ndax tuxibbuuna bëggu leen an be yaafira mu jéggal allahu yàlla lakum ñeel